jiite rassemblement islamique du Sénégal ñu gën ko xam ci RIS Al Wahda imam ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi am mbégte lool dalalaat la ci démb ak tey waxtaanee waat mbiram Israël ak Palestine. waaw Seyda Fatou maa ngi lay delloo nuyoo di kontaan ci dajawaat di waxtaan ci mbiru Palestine di nuyu ñi nga xam ne ñooy ànd di suivre sa émission bu am solo bi mm-hmm. di ñaan yàlla mu may nu ba nga xam ne dinañ fi wax loo xam ne dina participer ci li andi solution ci mbiru Palestine. Mhm. Imaam euh, di ma ko waxee sànq coow li du tey lu yàgg lool la ndax mën nga nu ñëwaatal euh, justement ci cosaanal jafe-jafe diggante Israël ak Palestine. waa xam nga jafe-jafe bi moom comme ni nga ko waxee yàgg na. boo ko bëggee remonter dañuy jëlal histoire bu sori mais mën nañu wax na rek Palestine ak Israël musuñu woon am problème yahud yi ñoo amoon problème ak euh, européens yi mën nga wax ñu jaar jaar jaar yu metti yi ñu ciy gën a fàttaliku mooy seen diggante ak Hitler ci jaar-jaar yooyu ci la réewu tugal yi surtout Grande-Bretagne bi nga xam ne ci jamono boobu parti boobu di Palestine ci loxom la ne newoon ñoom ñoo def arrangement ci seen biir ba implanté benn état boo xam ne ci histoire u àdduna ni mu amee moom rekk la ndax état la bu ñu fekk aw nit yu dëkk ci barab ñu déporter aw nit andil leen ngir sampal leen état même bu fekkee ne foofu am nañ fa cosaan am nañ fa démb am nañ fa jaar-jaar mm. depuis loolu nag quarante ba léegi nga xam ni ci lañu sos dëgg-dëgg état bu ñu fabriqué tu dëkk Israël mm. ci suuf soo xam ne historiquement boo delloo ci jaar-jaar doo fa dégg mukk turu dëkk bu tudd Israël mm. waaye nag am na fa existence ak jaar-jaaru ay yahud am na fa existence nekkuk ay arab am na fa existaaru jaar-jaaru ay Babylone ak ay arménien mais loolu lépp ñu ngi dund ci biir euh, harmonie même bu fekkee dana am xëccoo comme ni muy xam amee ay nit yu xëccoo ci barab mais nag ñu ñëw implante état ne lii état la pour juif yi imposé ko des unies def tous les moyens ba état boobu dox ñu ne beneen parti bi état la boo xam ne bii dafa war a nekk pour les palestiniens mais defuñu effort yi nécessaire ngir état boobu taxaw alors Israël commencé nag di dox di lekk état wu Palestine loolu ay xeex yu bari am na ci hmm. ba xeex yi ci mujj mooy xeexu soixante-six yi nga xam ne Israël jël na suufu Palestine lu baree bari arab yi naka jekk mboole seen lañu mas di wax palestiniens yi di ko wax mooy état bu tudd Israël duñu ko reconnaître hmm. mais bi ñu demee ba équilibre de force yi c'est-à-dire rapport de force yi nekk ci faveur Israël parce que adduna bi jàppale nan ko alors ñu dellu gannaaw nangu état wu Israël taxaw waaye ñu delloo ko ci froñ bu soixante six yi loolu ay résolution wu Nations Unies am na ci état yi mboole seen d'accord nanu loolu loolu moo génne ci résolution Oslo yi mm-hmm. bu ko defee Israël taxawal colonie yi autorité palestinienne yi palestinienne bi transformé wu nekk en état mais loolu amul ba léegi Israël mu ngi continuer parce que moom dafa jàpp ne ay frontière weesu na Palestine weesu na Jordanie ay fala ay moo ngi ci der dex ga ca Irak hmm. donc xeex boobu mooy continuer ci ay modalité yu bari bii dañuy fëkk dëkk yi mooy lu ñuy waxee implantation colonie te loolu ay résolution wu Nations Unies tere na ko bii dañuy génne ay nit déporté leen fi mu ne nii lu mat quatre millions de palestiniens ñoo ngi ci àdduna bi di tareena te amatuñu benn possibilité pour dellu seen réew parce que Israël tere na leen ko ay milliers ay centaines de mille ñoo ngi ci kaso yi donc bés bu ne ñu ngi bombardé fi mu ne nii ñoo ngi ci bombardé Quds lii mooy soixante treizième fois mm-hmm. depuis accordu Oslo yi ay bombardement ay attaque di jëm ci al bi nga xam ne mooy masjidul Aqsa mm-hmm. loolu mooy attaque yi xewaat ni tey du dara lu mooy yokk seen espace d'occupation tiital ñi nga xam ne ñoo dëkk ci al Quds parce que ñu fàttaliku ne alquds même bu fekkee jàkk nga fa mhm. mais ab dëkk la boo xam ne bi jullit ñi ñoo fa ne juif yi ñoo fa ne chrétien yi ñoo fa ne arménien yi ñoo fa ne mais boo doon seet jullit ñi xal nañu leen mat ñett ñoom ñooñu ñëpp boo leen boole hmm. ñooy majorité bi ñooy majorité bu bu yaatu léegi nag li ñu bëgg ñoom seen gëm-gëm mooy mas masjidul aqsa boobu nga xam ne jullit ñi dañu ko fonk mm-hmm. nga xam ne alquds ci boppam rek man nga wax ne mooy dëkk bi ëpp ay symbolu diine ci àdduna parce que li ñu tuddee kanisatul qiyaama te chrétiens yi fonk ko eh jàpp na Isa ibn Maryam foofu lu juddoo mu ngi foofu mur mm-hmm. de lamentation moo ngi foofu jàppee almasjidul aqsa jàkk ji nga xam ne ginnaaw kaaba gi mooy ñaareelu jàkk ci àdduna hmm. moo ngi foofu te bi ñu tabaxee kaaba gi quarante ans après lañ ko tabaxee yonent bi foofu la reñaane dem asamaan hmm. foofu jullit ñi bi leen yàlla joxee julli foofu lañu doon jublu di fa julli hmm. mooy jàkk ji nga xam ne kenn sañul laxasu ne maa ngi dem utu ci jàkk ju particulière judut moom ak kaaba gi ak jàkk yonent bi alors jàkk jooju tey moom lañu ñu xañ jullit ñi hmm. léegi nag xeex bi dugg ci formule bu bees mooy formule bu bees bi mu dugg mooy lii nga xam ne mooy force de résistance bi nga xam ne moo ngi nekk euh, Gaza moo ngi sànni ay misile di ko yóbbu foo xam ne fii musu fa yegg ci Tel Abib Israël ci boppam am na quartier boo xam ne bii moom la ñu xayul Hayyul nga xam ne daanaka ci quartier yi gën a yàgg ci euh, Quds ci la bokk Quds en tant que dëkk moo koy attaqué ngir génne nit ñi bu génnee nit ñi daaneel ko bu ko daanelee def ko colonie léegi nag guerre civile ci boppam ginnaaw guerre militaire biy dox digganteem ak résistance bi hmm. léegi ci biir Israël ci boppam nga xam ne dafa am ay arab yu fa desoon yoo xam ne yi mësuñu nangu génne yor nationalité israélienne léegi yegg nañu ci ab lim lu mat million ak lu teg xam nga population wu à peu près euh, une quinzaine de million boo ci amee ñoo xam ne ñii mat nañu un million et quelque loolu population bu représentatif lañu mm-hmm. ñoo ngi commencé di xeex ak euh, juif yi wa du ma leen tax tuddee juif mm-hmm. mais di xeex ak ñi nga xam ne ay israélien lañu ci biir espace bi nga xam ne Israël moo ko occupé mooy daanaka début guerre interne ci biir Israël hmm. mais beneen évolution bi gën a rëy mooy Israël dafa remettre en cause léegi l'existence su lu ñu tuddee état palestinien Palestine mi ko xajaloon mi ko xajaloon mu mu fëkk suufam léegi remettre na en cause état boobu war a taxaw ni mu ko remettre en cause moy lan mooy espace de viabilité bi tax état am hmm. espace boobu lépp lekk na ko mais amatul continuité léegi c'est-à-dire ay ay ay ay daggit la yoo xam ne yi hmm. tàqali ko dafa tàqali ko. Hmm. fii day am dara fële am dara. fii day am dara fii am dara fii am dara. pour nga am Palestine faaw nga dajale loolu yëpp. pour nga am Palestine foo nga dajale loolu mais foo nga génnee diggante bi li fi Israël porox ndollu dugg ci biir. waaw muy daggitu waaw. waaw yi nga xam ne moom moo ko occupé. Mhm. nga xam ne autorité moo foy dox. Mhm. te daggit yooyu mu ngi commencé fi mu ne nii tey Palestine mën nga wax ne. bo li mu waroon a moom. bu mhm. fekkee ne Israël existé na. nga xam ne cinquante pour cent la ñu waroon kenn ku ne ci espace bi. léegi Israël jël na cinquante pour cent ba pare. jël lu tolloog ñaari ceer hmm. ci li nga xam ne moom la Palestine waroon a moom léegi Palestine benn ceer bi moom la dese ak lu lu teg tuuti te benn ceer boobu sax viableul ngir mën a nekk état hmm. mais seulement viableul ngir mën a nekk état mais loolu léegi ay daggit moo nekk moo nekk moo nekk ci biir ñu occupé ko lii li ñuy wax Fatah occupé ko muy muy territoire yi hmm. lii euh, Hamas occupé ko muy muy muy Gaza hmm. loolu moo tax président Trump bi muy daanu li nekkoon projet mooy mu éliminer état bu ñuy tuddee état wu Palestine taxawal rek benn état boo xam ne bii dañu ko unifier dañu koy dañu koy def muy nekk benn état hmm. boo xam ne bii dañuy waxtaan ñëpp dugg ci biir ñu jël capital bi yóbbu ko Jérusalem te loolu àdduna bi yëpp dañu ko mos a bañ li ñu mos a wax mooy Tel Aviv mooy continuer nekk capitalu Israël mhm. lii ñu tudd Jérusalem west nekk capitalu Palestine mhm. Jérusalem gi nga xam ne fa la symbole diine yi nekk nekk benn dëkk boo xam ne bii daanaka mën nga wax ne dëkk la boo xam ne bii day am statut bu international boo xam ne bii ñëpp dañu fay yemandoo sañ-sañ. kenn ko bu kenn du ko moom territoire neutre waaw. waaw même bu fekkee ne loolu amul ci àdduna kenn mm-hmm. xamul nu ñu koy expérimenter. Mm-hmm. mais de toute la façon loolu moo doon stratégie léegi loolu réew yu mag yi xañ nañu leen ko. beneen bi nga xam ni moom la ñuy remettre en cause mooy palestiniens yi nekk ci àdduna bi. te amuñu fu ñu am nationalité ñaa ngi ñaa ngi Liban di nombre bu bari bés bu ne yaa ngi ñu ngi dégg seen coow ak libanais mm-hmm. ñenn ñi ñoo ngi Syrie ñenn ñi ñoo ngi Jordanie donc ñenn yaa ngi Égypte ñu baree ngi Europe léegi ñooñu ñu ñu ñu bàyyi ñi ci jege ci espace boobu dem Jordanie parce que ku ne xam na ne Jordanie seen population ñu ci bari ay palestiniens lañu. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci yeneen réew aussi ñu ut seen nationalité ci réew yooyu toog foofu mm. mais seen dellu si moom wara nekkaat ay palestinien doolu dootul dootul dootul mën a nekk mm. léegi moo taxoon gis nga ci daaw xeex yi doon xew xew mooy xeex yi nga xam ne ñoo ñu doon wax ne dañuy ñibbi sa force Israël di leen gàttandu ci ci ci frontières yi mm. di dal ci ñoom ñoom ñu continuer ne dañuy dañuy dañuy ñëw dañuy ñëw par loolu mën nga wax ne loolu dekkiwaat na ci xeex bi parce que ñu bari ci jordaniens yi ak ñu bari ci palestiniens yi nga xam ne ñoo ngi woon ci biti ñoo ngi buur jëm ci faras jëm ci frontières yi Égypte mi nga xam ne sax ci at yu weesu yëpp amoon na tuuti santiment ak Israël commencé na ubbi li nga xam ne mooy jàlluwaay yi nekkoon ci Rafah te nga xam ne palestiniens yi surtout ñi dëkk Gaza hmm. bu ñu masaan sonn foofu la nuy jaar génn mu tëjoon leen ay at léegi commencé na ko tijji hmm. nga xam ne mouvement dana am hmm. te bu mouvement amee alors ce qui loolu palestiniens yi lay lay jariñ parce que ñi nekk ci biti dina ñu dugg ngànnaay foofu lay jaar hmm. ab dund aussi foofu lay jaar mhm. kon daal Imam Kébé bu ñu la déggee xëy na tey yëf yi bu demee nii euh, Donald Trump président Amérique bi fi jóge yàggul dara euh, am na ci wàll wu rëy waaw am na ci wàll wu rëy parce que accord Oslo yi naka jekk Nations Unies ci la doon liggéey réewu arab yi aussi ci la doon liggéey accord Oslo yi euh, substance bi mooy lan mooy ñu am ñu ñu ñu ñu dox ngir am ñaari état état boo xam ne bii mooy état wu Israël ak ay frontières yu ñu xam discussion bi mooy frontières yi fan lay am ndax Israël li mu jël nii lépp lew na ko mu arrêté colonie wala day dellu gannaaw dellu ci frontière u soixante six yi parce que loolu mooy xeex bi nga xam ne lekk na ci lu bari ci xeexu soixante six ñu ne ko na na yem foofu lu dul frontière soixante six yi mu dellu ci mu dellu ci gannaaw loolu moo doon discussion bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mais kenn mësul remettre en cause état wu mais mais Donald Trump bi mu toogee moom moo indi li ñu tuddee compromis di siècle arab yi tuddee ko complot di siècle hmm. safqatul qarn loolu li mu tekki mooy lan mooy état wu Palestine dañu ko teg ci suuf parce que mënatul ne ñu dem ci benn état boo xam ne bii ñëpp ko bokk ci diggante boobu nga xam ne moom dafa toog Israël def ci profiter ngir yiy tax loolu am mu commencé di ci di ko di ko def ndànk-ndànk mm-hmm. mooy toxal capitalam ñu nangul ko ko mm-hmm. yàgg na ko def sax mm-hmm. mais li ñu ci dolli lu bees mooy réew yi ko nangul woon fekk ci capitalam ngir seen représentation diplomatique mhm. Amérique bi mu teewee dafa daal dem fekk leen ci loolu li nga xam ne moom la ñu daan defal Palestine ngir Gaza ak territoire yi nga xam ne dañu leen occupé ñu mën a am euh, dund bu bu jàppandal mhm. nga xam ne benn institution la boo xam ne Nations Unies moo ko tegoon Amérique bien sûr bokk na ci ñu ko doon gën a alimenté mu mu téye alal jamu ci daan dugal ngir def pression ci état wu Palestine ñu ñu ñu nangu loolu donc demarche boobu nga xam ne mooy démarche démarche unilatérale boo xam ne bi bu Amérique la bàyyi li nga xam ne mooy résolution yi nga xam ne naka jekk moom la Nations Unies mës a jël même bu fekkee na sax daawul def effort ngir résolution yi ñu respecté ko mais de toute façon en terme de principe moo ngi jël position yooyu loolu tàmbalee ci accord Oslo ba ci Madrid ak discussion yu ñu mës a def yëpp Amérique def ko teg fële andi plan wu boppam plan boo xam ne bii substance bi mooy naam na jàmm am waaye na jàmm am ci état boo xam ne bii ñëpp ko bokk donc état boobu c'est question mooy bu fekkoon ne day dem ci nu ko bëgg ni loolu aussi yobbale na ci réew arab yu bari. Hmm. ba tax ñoom ñu dugg ci lu ñu tuddee normalisation ak Israël loolu tam mooy mooy mooy dal se ñaareel bi mhm. mooy arab yi naka jekk quarante huit ba léegi Israël adversaire lañ ko mos a jàppe même bu ñu xeexul ak moom mhm. amuñu relation diplomatique amuñu jëflante amu amuñu demlante bien sûr depuis Camp David ak euh, le président Sadat commencé woon nañu di normaliser wu même Sadat mi normaliser ak Israël sa arab yi dañu ko beddoon. Hmm. bi ñu demee nag ba accordu Oslo nga xam ne léegi ñoo ngi ci situation boo xam ne bi war na aboutir ci état wu donc adduna bi am na ñu commencé woon di normaliser seeni relation ak Israël suñu réew mi ci la bokk Sénégal. Hmm. ci période boobu nga xam ne état yaa ngi normaliser seen relation ak Israël ci la ñu ak. Israël mm-hmm. mais état yi nga xam ne ñoo doon ay état de yi nga xam ne ñoo yenn woon projet bi dëgg-dëgg mm-hmm. muy màkk Arabie Saoudite ah ak euh, euh, réew yu mel ni Syrie réew yu mel ni Jordanie pays du Golfe bi yëpp nga xam mm-hmm. ne ñoo mës a nekk doole Palestine en terme euh, ci ci wàllu dimbal ci alal ak ngànnaay ñooñu musuñu nangu normaliser wu mais président Trump daf leen ci ci ci liggéey bi muy liggéey fexe na ba yóbbu leen ci ñu normaliser seen relation ak Israël mais yemuñu ci normaliser seen relation ak Israël mm. mais ndimbal lañ daan def Palestine sax dañu leen jàmbu ci ci ci ci loo mën a wax. mujjee ko wàññi. waaw wala sax mujj nekk ñuy ñuy ñuy pousser état wu Palestine ngir mu nangu situation de fait bu bees bi. Mm. alors yooyu di ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne yi mën nga wax ne affaiblir na umma bi mën nga wax ne kuréel yi nga xam ne moo boole julli moo boole jullit yi hmm. wala kuréel yi nga xam ne moo boole arab muy ligue arab wala muy muy suñu suñu con conférence bi nga xam ne moo dajale kuréelu kuréelu kuréelu l'islam yi hmm. OCE yooyu mënatul sax daje prononcé wu ci question palestinienne yi parce que umma bi xar na ñaar. Mm-hmm. pays arabe yi aussi xar nañu ñaar. waaw imam ñu mën a njortu ne kon am na lu nekk ci ginnaaw ndax bu réew yu mel ni euh, Arabie Saoudite ak euh, Syrie ak ñoom seen demee ba États-Unis mën leen a yóbbaale euh, xëy na ñàkkul lu ci lalu. non lu ci lalu rek mooy xam nga réew mu ne mën nga wax ne sa intérêt wala duma wax sax réew mais régime la. Mm-hmm. résim yooyu xëy na gis nañ ne fi Amérique tolloog ñoom mm. ci jàppale ak ci sàmm fu mu lu mu leen def loo war nañ ko mun a def waaw mm. ah, te réew yooyu ku ne xam na ne régime yooyu buy dox ba léegi amerig am na ci paaru jàppale bu rëy mm. bu leen jàmb woon wala mu xeex leen wala mu jàmbure sax ci ci seen doxalin mm. ci seen biir réew am na fa yu mën a tax yu bari soppeeku comme que Amérique jekku na leen ci wàll woowu mm. ñaareel ba aussi tiital na leen bo wax leen ne Israël du seen adversaire Iran mooy seen adversaire mm. ak mbirum ah, moom am na doole am na doole militaire am na doole ci population am na tradition ci xeex bu nu leen taxawul ñoom dinañ leen dinañ leen dinañ leen won alors pour nu taxawu leen il faut ngeen defar seen digganteeg Israël yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yi tax na ba réew yooyu teggi seen tànk ci question wu Palestine bi alors Israël gën a mën a jekku Palestine parce que amatul ndimbalu gannaaw ba mu daan am wéet na ci xeexam man nga xam ne moom rek la. Mm-hmm. situation bi ñuy nekk nii mësul am. te fekk ligue arabe wootewul fi mu ne nii réew yu bari ñu ngi naan na ligue arabe daje mais mënuñu daje. situation bu mel nii mënul mm-hmm. am te coopération islamique dajewul. Mm-hmm. coopération islamique euh, li ko tax a taxaw à 69 nga wax ne bi ñu attaqué Quds ci la moo moo taxoon. jamono boobu roi Faysal moo fi nekk ak roi euh, bu bu bi Hassan mm-hmm. ñooñu ñoo ñoo ñooy doon initiateur yi Sénégal ci rôle pilote bu bu rëy rëy ak yeneen réewu l'islam yi mais aussi yi boobu nga xam ne question bi centrale bi boole woon jullit ñi ci jamono boobu moo doon question wu Palestine léegi sax pour dajale ko mu prononcé wu génn déclaration déggatuñu ko sax déclaration sax mënatu ko génne mm-hmm. parce que contradiction yi mm-hmm. yegg na ci xóotaay ak profondeur boo xam ne bii jullit di mënuñu daje loolu itam doon bu bees la mm-hmm. ci question palestinienne mooy fexe nañu ba ci politique gu normalisation bi nga xam ne réewu tugal yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko orchestré ñu fexe ba Palestine nekk réew moo xam ne mii réew mu wéet la mu amatul gannaaw. Mhm. ñu taxaw tuuti itam ba tey ci intérêt yi États-Unis lan mooy njariñam euh, ci Israël taxaw doon un état fort. njariñ bi ñaari njariñ la. Hmm. njariñ bi ci jëkk mooy ci politique internam dafa am ay juif yoo xam ni dañu nekk Israël am fa am fa doole am fa jeexital. nga xam ne en terme d'économie am na lu nu fa yore. li nga xam ne mooy communication aussi am na lu ñu fa yore mm-hmm. xereñte àdduna aussi am na lu ñu fa yore ñooñu ñaare ku ñu nekk ci sa wet alors di nga dinga dinga am doole mm-hmm. la plupart ci ñi nga xam ne dañuy folu ci Amérique dina am ay accords yu ñu am ak ñoom ngir ñu jàppale leen ci seen toogaay ak yu demee noonu mm-hmm. donc seen politique interne ñaareel ba ñoom dañu jàpp ne sécurité Israël benn parti la ci sécurité Amérique ndax dañu gis ne contradiction ci wàllu civilisation bi nga xam ne moo am ci àdduna diggante jullit ñi la ak civilisation occidentale bi donc jullit ñi waruñu leen bàyyi ñu am jotu seen procès civilisationnel bi ñu tabax ko hmm. donc il faut ñu créer leen ay situation yoo xam ne yi ñoom ci seen biir dañuy ñàkk déggoo gis nga yaa ngeeg ñaari pôle islamique yu mag wow. benn pôle Arabie Saoudite mm -hmm. benn pôle Iran benn pôle bu nuy tabax te pareegul mm -hmm. nekk fa mm -hmm. alors ñooñu force boobu bu la neexee nga dugal ci Indonésie mhm. même bu la neexee nga dugal ci nigeria mhm. ak Afrique de l'Ouest wow. yooyu bu leen kenn bàyyi ñu déggoo ba am ak ànd ak gu ñu mën a tabax. te foofa yëpp kat foo ci xool fi mu ne ma ngay boy. foofa foofa xool mu ngay boy donc dëkk yooyu gis nga léegi gis nga tugul. Mhm. bi nga xamee ne jóge na ci guerre bi. muy muy muy muy deuxième guerre mondiale. Mhm. fexe na ba xeex bu mag amatul ci biir Europe. Mhm. parce que xeex mënul ànd ak développement. donc jullit ñi nañu bàyyi xeex yi nañu ko toxal ci espace jullit ñi. bu ko defee mu anéantir seen développement. ñu dugal ci seen biir noonu boo xam ne bii dana leen ci soxlaal bu ko defee dootuñu tal sax seen process civilisationnel mhm. léegi dañuy nekk ci ay détails yu ndaw bu ko defee Europe continuer di leen jekku jekku gi mooy lan mooy benn marché bu yaatu la mhm. un milliard huit cent millions de personnes loolu marché bu yaatu la ci àdduna marché boobu bu jëflante woon ci biiram mhm. alors doole ju mag la ñaareel bi mooy ressources yi am ci àdduna bi ci wàllu mbel la yeeg yu mu mën a doon ci espace boobu la ne mhm. yoon yi nga xam ne moo lëkkale àdduna moo xam yoonu ndox yi la mhm. moo xam yoonu jaww ji la ci espace boobu la ne donc espace boobu réewu tugal yi duñu ko bàyyi mu nekk ci loxo yoo xam ne yi alors du nekkul ci seen doxalin wóoluwuñu ko mhm. donc yooyu mooy enjeu yi nga xam ne moo tax affaire Israël bi réewu tugal yi téye ci conflit yi nga xam ne moo xewoon bi is bi Palestine di am conflit yooyu yëpp àdduna réglé na ko muy hmm. apartheid bi nekkoon ci Afrique du Sud même bu fekkee ne waa Afrique du Sud def nañu seen xeex mais àdduna moo leen jàppale woon hmm. colonisation àdduna réglé na ko léegi politiquement réew yi nga xam ne dañu nekk ci loxo ñeneen mën nga wax ne da nga leen di lim bu fekkee ne sax am na ay espace yu ñu coloniser ba léegi moo ngi am hmm. mais yaatuwul yaatuwaay boobu beneen question bi nga xam ne mooy question bu yàgg te mënul am solution te solution nekkul lu jafe à cent pour cent mm-hmm. alors loolu mooy question palestinienne bi nga xam ne réewu tugal yi gisuñu intéret ci xeex ngir mu ñaareel ba aussi mooy Palestine ci boppam ay nitam ay nit yu yu yu mag lanu ci xam-xam ak ci dayo ak ci liggéey ñooñu mënoo leen bàyyi ñu dellu ci espace boo xam ne bi mm. alors procès de civilisation bi fa nekk dafa opposé wu ak projet wu civilisation bu Occident. Hmm. lii mën nga wax ne mooy enjeu yu mag yi nga xam ne moo tax ala minki surtout Amérique. Hmm. mu def bakkanam ci jàppale Israël gis nga Donald Trump mii ñu door a tab euh, euh, Biden. Joe Biden. mii ñu door a tab gis nga déclaration bi bi mu def di wane ne euh, alors missile yi nga xam ne Hamas moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy sànni alors loolu warta mën a nekk lu war a tax Israël am comportement bi mu am ni donc pour ñu téye Israël mm-hmm. na ko bàyyil il faut missile yi nga xam ne ñoo ngi koy envoyé ñu ñu arrêté ko fekk missile yi dafa ñëw gannaaw attaque yoo xam ne yi depuis weeru koor gi la. Mhm. depuis weeru koor. di fekk jullit ñi ca jàkk ja. di fekk jullit ñi ci masjidul aqsa mhm. di leen te loolu sax dafa dafa dafa fës rek ci weeru koor wi. Mhm. mais mën nga wax ne at yëpp. mosul dakk musul dakk Israël dafa dafay dafay filtrer ñiy dugg ci masjidul aqsa képp koo xam ne kii xale la boo xam ne bii xalaat na ne war nga mën a résister. dañ lay éliminer systématiquement di bàyyi mag ñi ak jigéen ñi ñuy dem julli ji hmm. masjidul aqsa lan la ñu bëgg mooy euh, tampalu Souleymane bi nga xam ne dañu gëm ne seen seen seen ndam hmm. foofu lay yegg bu fa yeggee ñu mën ko tabax alors loolu processus la boo xam ne bi il faut fréquentation islamique boo xam ne bi day wane majorité jullit ñi ci Quds fréquentation boobu il faut ñu wàññi ko. Hmm. moo tax jullit ñi defoon enjeu ngir di julli ci xut alors ñu defoon ko enjeu bu rëy di wane ne effectivement malgré que nattu yi malgré que attaques yi hmm. noo ngi fi di téye sunu jàkk gis nga laylatul qadr bi weesu ni hmm. plus de dix mille ci ay nit ñoo jullindoo foofu laylatul qadr te booba ñoo ngi ci encerclement bi nga xam ne kenn mësul gis bu mel noonu. Mm-hmm. ak attaque yoo xam ne am na ñoo xam ne bu ñuy dem li ñuy participer ci xeex bi mooy yóbbuwaale ay saaku ci ay xeer. Mm-hmm. ngir bu leen gars yi attaqué ñu mën a dal ci seen kaw. Mm-hmm. donc environnement boobu ci la question palestinienne dugaat bees. adduna bi aussi ñoo ngi leen di jàppale kenn ku ne selon ni nga man. ci manifester wu di wane seen naqar ci li nga xam ne moo xew. Mhm. même bu fekkee ne autorité politique yi seen kàddu yeggul ci dimension wu. defi bi nga xam ne moom moom la leen Israël teg tey. Mhm. imaam bu weesoo mbirum euh, kon jullit ñi sax dafa yegg ci mbirum sañ-sañ ak ak ak yelleefu doomu aadama mais ba tey ñu ñu taxaw ci jullit ñi ndax wax nga ko Amérique jàppale na bu baax Israël ngir enjeu yu bari yu ci nekk lalu ci intérêt mais tey responsabilité wu réewu jullit yi fës na lool ci wéetaayu Palestine ak ni ñu ko nootee te lii bu dakkul moom mënees naa njort ne euh, yàgg-yàgg état wu Palestine. dafay nax saay responsabilité wu jullit yi tey lan la ak xëy na yow en tant que njiital rassemblement islamique du Sénégal di jullit mën a yëkkati ni kàddu jëme ci ñoom en li ma mën a wax mooy Palestine mosul wéet ci histoire ci ni mu wéete nii fi mu ne nii état boo xam ne bi taxaw na jàppale ko jàppale bu fees ci wane position boo ci génnee ay ñetti état daanaka doo gis état bu ko ñemee mm-hmm. même état yi bu ñuy bu ñuy bu ñuy génn déclaration déclaration boo xam ne bi ay wi dañu koy yenn ñaari nit yëpp mm-hmm. moom la ñuy def comme jéem ci digg bi waaw jéem a taxaw ci digg bi wane na ñaar ñuy ñuy xuloo la fekk du ñaar ñuy xuloo mm-hmm. kenn ku am doole la di noggatu ku amul doole donc kuy wax ngir àtte ki am doole ngay téye na ko dellul ci sa place ki amul doole ñu jox ko ak mm-hmm. mais loolu sax état yi moom lañu doon def bu jëkkoon mais léegi sax ñi meetuñ ko def mm-hmm. léegi donc lan moo war a xew mooy jullit ñi ci seeni organisation ñu approprié wu question palestinienne bi ubbi ay stratégie yu bees yoo xam ne ñi da leen di permettre ñu wan yahud yi juif yi occupants yi que ni lii warul mën a mën a yooyu en de communication la stratégie yooyu mën na dem xam nga fi mu ne nii masjidal aqsa jullit ñi booy seet ñaata nit ñooy dem umra kenn xamul waxuma aj de mm-hmm. aj moom farata la boo xam ne bi lislaam moo ko moo ko teg jullit ñi mm-hmm. mais jullit ñi di nga gis koo xam ne ki dem ra umra benn yoon rek lay lay dem mais chaque année mm-hmm. mu dem mu dem mu demaat dem umra bu demee umra dana dem kaaba eh, ba ci kaaba gi lañ koy defee mais bu fa jógee dana dem Médine ci jàkk yonente ba def ziyaar mais masjidul aqsa ci ñetteelu jàkk yi nga xam ne dañu am statut bu particulièrement may jullit di fa war a dem mm-hmm. di ziyaara léegi jullit yi il faut loolu ñu ñu ñu dekkalaat ko waaw wone besoin bi ñu am ngir dem masjidul aqsa xam nga fii même ñu ngi def ay ay organisation di dem Faza di dem ay nomades nag di dem yooyu mm-hmm. mais imaginel dëkk bu toll ni Indonésie bu organisé woon ay ziyaara ci Quds mm-hmm. dëkk bu mel ni Sénégal ak xeram ci diine organiser ay ziyaara ci Quds Maroc def ko Nigéria ak mbooloom ak dooleem ak alalu addunaam mhm. def ko nga xam ne chaque année ay milliers de personnes bu waxtu ba jotee mhm. ñooy tase ci almasjidul aqsa jàpp naa ne palestiniens yi nekk foofu jullit yi nekk foofu mhm. dina yëg ne am na nu jàppale àdduna bien sûr léegi dem al alxuds mën na jafe jafe na sax ba léegi parce que jullit yu bari dañuy bëgg a dem mais avec les formalités administratives yu yombul mhm. mais li ma bëgg a wax mooy bu nu ko jëloon politique boo xam ne bii jullit yi ñoo koy taxawe mhm. alors dana tax procédure yooyu yëpp ñu réglementé ko parce que dinañu xam ne adduna bi ñoo soxla di dem foofu jullit yi ñoo soxla di dem foofu mhm. parce que ñi fay ñi fay dem te ñu bëgg ñu ñëw fa ñu ngi leen di bàyyi ñu nga fay ñëw donc loolu benn pas boo xam ne bii day delloowaat centralité masjidul aqsa mhm. centralité question palestinien yi ci biir jullit yi mhm. bu ko defee jullit ñi boole ko ci seen xeex mais fexe nañu ba wane ne xeex bi xeex la boo xam ne bii diggante araab yi la ak yahud yi donc joxuñu ko dimension islamique bi mu war a am bu ko defee aussi loolu day tax ba jàppale gi ci wàllu diine day day day day day day day wolof hmm. day day woyof doo am doole bi mu war a am hmm. beneen bi aussi mooy dimension humaine bi nga xam ne moom la question bi am alors kuréel yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama joxuñu ko dayoo bi ñu ko war a jox seen déclaration bu ñu demee ba ñàkk-ñàkk pexe hmm. ci la koy def mais duñu ko def ci waxtu ba duñu ko def ci temps ba duñu ko def aussi ci continuité bi mu laaj donc jàpp naa ne fi mu ne nii jullit ñi ñoo war a jël mbir mi organiser wu ci façon bu populaire parce que ce qui est sûr mooy seeni état du ñu leen jàppale ci ci loolu waaye am na bien sûr am na ay organisation yoo xam ne yi taxawal nañu ko hmm. muy liggéey ci question palestinienne mais organisation yi yeggagul ci dayo ngir mën a jàppale cause bi ci ni mu waree. loolu laa doon bëgg wax am nañ fi campagne sénégalaise pour la défense de la Palestine dal Quds ak yeneen muy loo xam ne lu fi yàgg la mais seen doole wax dëgg yàlla bu nu dajaloowee it dafay néew loolu ndax fi mu ne yëf yi mbirum état la mbirum intére la ay enjeu yoo xam ni euh, yeggagul ci dayo association yooyu. voilà c'est ça parce que xam nga relation internationale ay rapport de force la. Mhm. te am na rapport de force yoo xam ne ak état moo ko mun a def. ñii campagne opinion rek nga mun a def mm. te campagne opinion boobu munuloo ci organisation yi ni mu tabaxewu amuñu lu leen may mu mën a nekk campagne boo xam ne bii day continuer ñu ciy liggéey organisation yi kenn ku ci ne am nga yeneen i priorité question palestinienne bi dafa bokk rek ci yi ngay yëngatu parce que ay organisation la yoo xam ne ay mouvement social la yoo xam ne am na leneen lu tax ñu sos ko. Mm-hmm. bu ñu xëyee ci yooyu la ñuy yëngatu question palestinienne yi ñoo ngi ciy yëngatu ñaare rek bu fekkee ne tension bu rëy am na bu tension boobu weesoo ñoom ñu dellu ci seen mission hmm. bu ko defee question boobu ñu ñu fàtte ko léegi fi ñu war a jëm mooy créer ay organisation yoo xam ne yi dañuy spécialisé wu ci jàppale minorité yi nga xam ne wala ñi nga xam ne ñoo ngi leen di sonal mm. loolu bu nu réussiroon ba am organisation bu yaatu boo xam ne bi dafa dajale nit ñi mm. nga xam ne ci question palestinienne bi dong dong dong lay yëngatu ay ñu utal que les moyens nécessaires réew am na sax am na bale am na am na organisation yoo xam ne yi mm. taxawal nañu ko mu ngi mu ngi mu ngi daje bi àddina bi neex chaque octobre don nañ fa doon nañ fa daje. di di waxtaan ci question palestinienne bi xool nan la ñuy def ba trans ba xeex bi yóbbu ko ci population yi organisation boobu malheureusement ba ba léegi ñu tuddee ko alliance internationale pour pour le peuple palestinien donc dooleem dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa sax. pour mu pour mu pour mu yëngatu fi mu ne nii euh, bi ñuy taxawal alliance bi idée bi moo doon na tàmbalee turc mais chaque année euh, assemblée générale bi ñu yóbbu ko ci beneen réew. Mm-hmm. mais ba mu tàmbalee ba léegi mel na turc mooy nangu assemblée générale bi ñu defee ko ci réewam. Mm-hmm. amuñu sax possibilité ngir toxal ko yóbbu ko ci yeneen réew. bu bu bu bu génnee ay ay ay ay résolution ma ki décision bëgg état yi appuyer ko état yi duñu ko ci jàppale hmm. léegi li muy mën a def mooy liggéeyu liggéeyu masse am na fi alliance parlementaire yi nga xam ne dañu gëm question palestinienne am na ay sénégalais yu ci bokk ñooñu itam chaque année dinañ daje ngir parlementaire yi ñu xiir leen ci ñu dooleel question palestinienne bi mais parlementaires yooyu aussi seen doole demewul noonu seen i parlement du ñu leen dégg mm-hmm. parce que li ñu bëgg mooy seen i parlement di génn ay ay ay résolution ay déclaration di wax mais ku ne xam ne ne pas suñu parlement yi mm-hmm. ni mu bindoo mooy dañuy xaar état yi ci ci question yu yu yu bëree bëri am na beneen mm-hmm. kuréel boo xam ne bi moo dajalee ñi nga xam ne ay journaliste la ñu te question palestinienne yi intéressé leen ñooñu sax xëy na bu amee ñuy liggéey dëgg-dëgg ci question palestinienne bi ak seen néew doole. Mhm. mooy journaliste yooyu nga xam ne question palestinienne bi def leen yitteel. nga xam ne li ñu man ci éclairer opinion bi di wane situation bi fan la toll ñooñu la ñu ciy def sax mën nga wax ne ñu bari ñu ko ci def donc ak kuréeli l'islam yi nga xam ne suñu association yi ak yeneen association yi nga xam ne tàng bu ñu defee dajee tàng bu ñu defee waxtaan du ñu def waxtaan te dugaluñu ci question palestinienne bi duñu duñu def waxtaan te génnewuñu résolution bu aju ci Palestine alors mais yooyu jàppale par rapport ak question bi fu mu toll jàppale yu limité wu la question bi question ay état la ñoo ko mën a régler même bu fekkee ne de temps en temps population yi mun nañu pousser état yi ngir ñu am ay position mais pousse yooyu du yegg ci fermeté fi war a yegg parce que état yi kenn ku ci ne am na ay équilibre yooyu sàmm. Mhm. muy intérêt yi ba léegi. Euh, tey kon fi mu ne Imam Kébé euh, ban sortie issue nga gis pour Palestine ni yëf yi bindoo tey compliqué na ba jéggi dayoo euh, mais yaakaar nga ni ba léegi solution mi ngi am pour Palestine. waa solution solution mun na am solution bi mooy il faut ñu renforcer ñu ñu renforcer pardon force de résistance ba nga xam ne dinañu mën a continuer li ñuy def mooy riposte bi ñuy def bu ko defee riposte boobu ak xeex bi am yëngatu bi am ci biir Israël dana obligé Israël mu delluwaat ci taabalu négociation négociation yi ngir accord yi nga xam ne moom moo ko signé ci Oslo ak ci Madrid accord yooyu ñu appliqué ko mooy ñu amal ñaari état yoo xam ne yi benn bu ci ne dana mën a dund ñu dellu ci frontière soixante six yi ñu bàyyi palestiniens yi nga xam ne ñoo nekk ci biti ñu dellusee palestiniens yi nga xam ne ñoo ngi leen tëj te kenn tëju leen lu mooy question wu résistance bi ñu génn leen ñetti question yu mag yooyu bu ñu ko réglé woon te yooyu adduna mën na ko réglé hmm. bu ñu ko réglé woon question palestinienne bi dana wàññeeku tension wu Palestine ak Israël du jeex hmm. parce que euh, tension la boo xam ne bi euh, ce qui est sûr mooy doole moo yemul rek hmm. mais dana am bés dëgg feeñ dëgg am doole ju mën du ko mën a may mu imposer boppam te bés bu dëgg amee doole ju ko may mu imposé boppam alors mën na am ay wëlbatiku situation yoo xam ne yi nit ñi duñu ko sax xalaat hmm. parce que civilisation européenne bi ngay gis ni réew yu mag yi ka ŋànk boo ci génnee Amérique réew yëpp kenn ku ci ne yaa ngi ci sa ay limitu force hmm. jëmatoo kanam dangay dellu gannaaw am na yeneen force yuy tabaxu ci àdduna bi Chine mu ngi tabaxu nekk force bu bees Inde mu ngi tabaxu nekk force bu bees Brésil mu ngi tabaxu nekk doole ju bees Afrique du Sud mu ngi tabaxu nekk jeneen doole bu génnee ci ay problème am hmm. Afrique moo ngi ci ay possibilité yu ko may mu positionné wu ci àdduna même bu fekkee ne exploité ay possibilité mais am na ay possibilité yu ko may mu positionné wu nekk beneen pôle ci àdduna bi mais pôle yooyu yëpp bu tabaxoo hmm. mën na gaaw comme mën na bañ a gaaw àdduna bi dañuy nekk ci seddale doole yi ak man-man yi ak kàddu yi ci beneen situation hmm. loolu bu ñu ci yeggee le monde arabe aussi ak contradiction yi mu am yëpp dafa am ay pot dafa am ay gàllankoor yu ndaw yu ko téye mais am na ay force yuy tabaxu foofu yoo xam ne yi gis nga lekk woon ci printemps arabe bi mm-hmm. même bu fekkee ne am na ak dellu gannaaw deewul day judduwaat mm-hmm. équilibre yooyu bu créé woo mooy créer condition yi nga xam ne question bi il faut ñu régle ko adduna bi nag mën na ko régle am na les forces yu ko may mu régler ko mm-hmm. te kenn amul intérêt ci conflit bi continuer donc il faut mu am issue ci façon boo xam ne moo xam bu pacifique la wala ci façon boo xam ne bi dañuy tabax rapport de force yi nga xam ne mooy créer condition wu Israël dellu gannaaw Palestine am réewu boppam kon xëy na fii ak booba li ëpp solo euh, peuple yi mun nañ ko def mooy fexe sàmm li nga xam ne moom moo lëkkale ba tey jullit yi donte wuute am na ci yu bari waaye li ñu desee akas néew ci li ñu lëkkale ñu wéy di ko sàmm ba yegg xëy na ci situation yooyu ngay wax. waa fi mu ne nii en tout cas fi fi mu ne nii li xew ci géopolitique internationale li mu wane mooy xeexu Palestine bi. état yi yoreetulu ko wala wàññi nañ ci seen seen taxawaay hmm. donc organisation populaire yu jullit yi ñoo war a jël relais bi jàppale seeni mbokku palestinien ci xeex ci xeexu politique ci xeexu média hmm. ci xeexu opinion jàppale leen ba nga xam ne ñoom dinañu yëg ne wéetuñu bu ko defee loolu dana leen dolli confiance ngir liggéey ba ñuy def ñoom ci seen biir réew hmm. ñu mën ko def en ñu am situation internationale boo xam ne bi am na stabilité tuuti hmm. eh, mooy doon laaj bu mujj bi imam est-ce que Palestine tey ni yëf demee am na capacité wu résister non am nañu capacité résister bu baax hmm. benn handicap rek lañu am mooy mooy seen organisation bu mag bi nga xam ne ci la Palestine def seen doole muy muy muy muy OLP te nga xam ne base bi nga xam ne mooy base bi koy bi koy doxal mooy Fatha bi nga xam ne Yasser Arafat moo ko jiite léegi Abou Mazin Mahmoud Abbas jiite ko Fatha boobu dañu fexe fexe fexe ba tënk ko bu ñu ko tinki woon mu liggéey ak Hamas ak jihad ñoom ñooñu am nañu ci tradition wu résistance lu leen may bu ñu doole leen tuuti hmm. li nga xam ne Hamas moo ngi koy def ci Gaza Fatah commencé ko def ci territoire occupé yi jàpp naa ne loolu dana obligé Israël mu ñëw ci waxtaan hmm. mais loolu mooy contradiction bi nga xam ne mënuñu ko régler ba seeni organisation interne yooyu nekk benn kàddu fi mu ne nii benn résistance moo am mooy Hamas rek moo résister ak jihad mm-hmm. mais bu fekkoon ne OLP dugg na ci résistance bi fi mu ne nii ah yeneen organisation yi signé woon Oslo dugg ci résistance bi ñu dooleel arab yi nga xam ne ñoo ngi ci biir Israël te dugg ci résistance bi fi mu ne nii alors loolu mënuñ ko def weer te Israël toogul ak ñoom waxtaan mm-hmm. am nañu ci possibilité lu leen may yow ba xeex yu weesu woon yëpp mm-hmm. ay xeex la yoo xam ne yi ci biir palestinien la la woon mais pour la première fois palestiniens yi di sànni di riposte muy dem bi Israël mm-hmm. même bu fekkee ne li fay li fay gaañu ci bakkan demewul noonu mm-hmm. mais am yàq ci wàllu économie mu ngi commencé bëre nit ñaa ngi commencé am stress parce que situation bu mel noonu mosuñu ko dund mhm. alors loolu nuñ continuer te ñooñu defuñu pression ci seen état mhm. ngir ñu toog waxtaan te kàddu yooyu commencé na jub ci biir Israël am na même seeni borom xam-xam yoo xam ne li ñuy wax mooy avec situation bi Israël projet Israël ci boppam moom la ñu remettre en cause mhm. parce que amul projet bu mën a dund ci tension bi continuer kon yaakaar mi ngi wéy di am ni nga ko waxee sànq ngir ngir waa Palestine jërëjëf Imam Mactar ñu ngi lay gërëm bu baax xamoon mbégte lool dalal la ci waxtaan wi andi nga leeral yu bari ci coowal Israël Palestine gi ñi nga xam ne xëy na umpale woon nañ ci lu bari ndax li coow li rëy rëy am na ñoo xam ne xëy na lañu ca xam bariwul loola waral ñu sàkk woon am ak yow waxtaan wi bu ko defee eh, ñu mën a ginde ñu bari waaye itam ku ci ne li ciy sa wàll nga xam noo cay taxawee fàttali ni yow yaa jiite rassemblement islamique du Sénégal muy RIS Al Wahda Imam Makhtar Kébé jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf maa ngi leen sant di leen ñaanal ci itte bi ngeen am ci question bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba suñu mbokk yooyu coono bu ñu ne yàlla woyofal ko. amiin jërëjëf kon mbokk yi seen émission dem ak tay la woon mun ngeen ko teeluwaat ci réew mi euh, officiel suñu chaîne ci YouTube ñu ngi ngi leen di gërëm bu baax ci déglu bi gërëm jaawu jàll mi fare woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu leneen ak keneen jërë ngeen jëf.